mën naa ni projet bi moom moo ñu boole muy emprise mais ginnaaw loolu dafa am ay relation yoo xamante ni dañ koo dañ koo am sama diggante ak moom mu nekk sama xarit benn nekk taalibe ndax man ku ma xam-xam ni ci taalibe lay dox ñu bokk am ay points communs yoo xamante ni franchement mu neex ma trop ci moom donc loolu moo tax ma jàpp ko jigéen bu woyof jigéen bu xam lu mu bëgg jigéen bu bëgg yaayam te man dama bëgg sama yaay waaw loolu moo tax ma jàpp Sukay loolu moo tax ba jóge ba fi ma dëkk ñëw ba ci biir këram ñëw toog fi tey. personnage ak ak la personne wax sa bopp nag yombul waaw Abdou Lahad Fam taalibe la rek as ndonga ku woyof koo xamante ku jàppul dara muy dara ku bëgg nit ku ñu yar fi ñu ko war a yare mu xam li ko war di def li ko war euh, mën naa ni kooku mooy laxaat femme kooku mooy laxaat femme léegi nag wax nag ci sa bopp daa xaw a jafe waaw dafa xaw a jafe ko bokkul ak dara nag ak personnage parce que personage moom lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tënk la solal la ko waaw mën naa ni tey bu nekkoon tey ci ñaw yëre la boo xamante ni dañ koy defar ba mu baax solal la ko tay ko sol suba nga sol beneen donc c'est personnage la bokkul ak la personne nag ay qualité am ay jikkoom ni euh, gis-gisam lépp bokkul quoi bokkul personnage mhm. bon da ngay artiste Euh, deuxièmement foog nga xam ne tamit ku deful loo xamante ni genre suñu la joxee benn benn benn rôle nga sol yére bi suñu la ci tuddul rek c'est parce que kon sa liggéey matul donc tey bu nekkee am nga benn rôle boo xam ne jox nañ la ko nga incarné ko ni nga ko war a incarné bu ko nit ñi kaas yi comme tey mën naa jël jàngoo tey jàngoo ñëpp danañ bandi la dafa soxor al ko jàngoo du xool nit mais c'est parce que dafa réussir tey rôle am tey Papa Demba tapet la man ko ñuma xam tapet la mais ñuma xam deug xam nañ Lahat Fam mom moy kan mais tay ci bir je bi da ngay gis ni ki tapet la da ngay gis ni ki tapet la mais lolu mom moy li nit ñi di wax c'est parce que kon tay rôle bi incarner nañ ko sol nañ yere bi ba mu jot ñu da nga siiw day tax tamit ñu leen di gis ci yenn comme ni ñu ko gisee fan gis nañ tiktok bi gis nañ gars yi ñu ngi commencé ñu ngi ci weeru koor mais ñu gis nañ mu dugal ay lomu tey jii lan ngay wax jeune yi nga xamante ne ñoo ñoo siiw di def yooyu noonu ñu dal rek ñu dal ànd ak dal ànd ak taalibe parce que taalibe moom moo ëmb lépp waaw ñu ñu bañ a fàtte fi ñu jógee te fi nga nekk démb nekkoo fa woon tey am na ñu bëri ñoo xamante ni xamuñu woon kan mooy Papa Demba peut-être que ñu tuuti sama entourage ñoo xamoon Laxaat Fam tey Papa ba àdduna xëy na xam nañ ko suba keneen mooy ñëw donc ñu ànd ak dal modeste nekk ay taalibe bañ a yennu dara parce que boo dalee rek doo juum ci yu bëri.

c'est vrai que j'ai ci animation amna fuma fu ci ay télé yo xamanteni fa mais sama bir kër sama famille ay artistes sama yaay la frère yo xamanteni dañuy way kenn freestyle la ñoo bokk ak way frère mais def lañ ko sama studio de musique plus de 15 ans donc ci milieu évoluer donc xéena ci la nga du bokk Pape demb dafa doy waar. dafa yambar <laughs> dafa yambar dafa saay-saay dafa faux dafa tu vois mais du bokk. parce que tey ñi ma xamoon ak tey ñi ma xam wute na tey àdduna ñoo may woo fu ne damay jot ay message damay jot ay appel boo génn ci mbedd bi ñu ni Pape Demba mi ngi nii. donc mënul bokk ak laxaas fam bi doon dox démb ci mbedd bi. sànq ñu moom benn maire ko mbécc war nañ ko mbéj. parce que dafa sonal papa Demba quoi jàngoo wuyu la jàngoo moom dafa sonal papa Demba su ko gars yi war nañ ko mbéj. Mm. mais papa Demba moom il est il bien non non mosuma dund loolu. lu dul bàyyi jaari. demal ci sukay bàyyil sukay demal ci jaari sénégalais kenn xamul lu ñu bëgg waa loolu la nag man xamuma lu ma bëgg loolu moom nangu naa ko <laughs> social euh, euh, campénal waaw loolu euh, dañoo nekk ci benn group boo xamante ni acteurs senegal yëpp ci lañu nekk ñu gis ni tey am na loo xamante ni peuple bi jox nañu ko ñun tamit am na loo xamante ni war na lañ ko delloo te booy dimbali nit da ngay dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yeyoo te ñiy féete ñi nga xamante ni caabi daf leen féete ginnaaw jàpp naa ni mënaluñu seen bopp dara tey kuy dimbali war nga leen mën a gëstu moo tax tey ñu ñu ñu ñu ñu xool suñu biir waxtaan nee nañu def ay don ñëpp nag lañ ci woo bàyyuñ ci kenn xeebuñu dara ku am sa saabu indil ku am sa yére indil ku am coton pour jigéen ñi indil ñu dara ku am sa cent franc sax dugal ko bu ko defee ñu mën a jàppale suñuy jigéen ñu nekk ci prison bi ak suñu frère yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci prison bi donc loolu moo tax ñu jëkkati campagne boobu bëgg la vingt 27 ñu ñëpp ñu ànd ci daal di jàppale suñu frère et sœurs yi allah. Uh-huh. loolu Pape Demba la wala dafa nekk loo xamante ni maanaam rôle la rek parce que am na suñoo xamante ni en général bu leen di jox rôle dafay fekk ni rôle day méngoo mais am na xamante ni rôle bi leen di jox du nekk ñoom ma bëgg a ba xam Pape Demba ni yambaree ci film bi la mel naturellement wala déet. waaw rôle nag des fois jox la benn personnage mu am loo xamante ni dafay nekk ci yow parce que du nekk lépp.

Euh, comme ni nga ko waxee tapet la mais du tapet parce que xamul dañ ko yar musul génn musul foowi sax musul dem football ci mbedd bi donc kooku bu xëyee benn jour rek génn ci mbedd bi commencé dugg biir banlieue xamul nu mu demee est-ce que comprend nga tasanteeg benn jàngo forcement day tiit parce que xamul loolu. mais kooku du laxaat. mais kooku Papa Demba la même sa defante bi ci film bi yaa yaa jàngo da bu film amul parce que sànq bi ngay droité maa waaw sama gaañ la xam nga xam nga xam nga xam nga mën a moom dañoo tase ci ay projet mm. lu bokkul ak euh, emprise parce que ñu bëri xam nga acteurs yi moom dañuy taxawal rek ñu ngi fii tey suba ñu ngi fee moom dañu xamante sama benn kër xarit bu tudd Mansour Diagne mm-hmm. ñu xamante cinq ans après wala sax 4 ans après suma suma suma suma djumul ñu ñu dal di tassé ci benn production bu tuddu djégu Pousso ma nekkoon fa nekkoon acteur principal bi mom mu ñew rejoindre ci ci projet bi ñu nekk ay xarit bokku tamit Serigne Sallou ndax mom Baye Fall la te man Serigne Sallou rek lay noyé donc ñu démat di démat ba Marodi woo ma ma ñëw ko fa donc lolu mo tax sama digënté ak mom duñu mayenté dara fuma ko fekk dama koy ciao Euh, euh, <laughs> question bi su ngeen ko posé loolu rek ma jaaxle. <laughs> non sama xarit la. xam nga moom laay wax sànq dafa am projet yoo xamante ni du ñàkk même kër. da nga am sa frère yoo xamante ni. ñooy gën a nekk sa gaañ. Mhm. ah des fois nga jur say doom sax mais mu am kenn koo xamante ni moom mooy sa xol. donc Rita sama xarit la sama complice la damay déggante moom lu bëri su may dem fenn wala dara des fois ñu daje parce que sama xarit la parce que dafa woyof bëgg lu baax fonk liggéey moo tax ma def ko sama xarit moom tamit mu def ma xaritam <laughs> sama waay la xarit kese la seekuñu dara sama xarit kese la ma ma leeralaat ko mhm. Rita sama xarit la seekuñu dara